constaté ni réew mu jóge ci Covid 19 ak surtout croissance bi ñu am nga bëgg bëgg a mobiliser toute l' année deux mille vingt deux ci ay élections pour man loolu c' est le chaos sama gis-gis parce que aussi dama lay xamal benn affaire je veux dire je ne suis pas xam nga nag senegal dañoo mën a interpréter. Mhm. fi mu toll da ngay dégg commentaire yi suba ñu ni Macky Sall moo ma yónni pour may jéem a convaincre opinion bi que ni dañu war a coupler élection yi. c'est c'est ça le Sénégal parce que. lu tax nit ñi war a njort loolu ci yow Cheikh Yérim non pas interprétation. pourquoi non non non non non mais attends yaa ko par exemple. Ah. Ah. ma yónni. Ah. pourquoi nga bëgg a jël étiquette boobu pourquoi nit ñi di njort yow boobu rapprochement yow ak. damay lire commentaire. waxuma lire non Pape non dama lay wax nag. non mais non da lay wax la preuve man bi ma analyser en fonction de mes wax ni élection législative locale yi y a beaucoup de chance pour ñu bari dañ ne Macky Sall ma yónni waa PASTEF créé benn groupe daal ni bon nu ñu ko waxee sax ni naar bu ndaw bi lu mu wax ci <laughs> ci naar bu mag bi la ko déggee <laughs> mais loolu dama koy lire donc demain ils vont dire aussi que non Cheikh Yérim Seck voilà il est en train de théoriser le doublage ndax Macky Sall moo ko yónni pour mu wax ko. Ah, mais yow kon Sénégal lañ dëkk non waxuma loolu de. mais en même temps c'est-à-dire xam nga par exemple. Hmm. keneen mënoon na ko wax te duñ xalaat loolu. keneen keneen mënoon na ko wax te duñ ko xalaat ah, pourquoi yow nga wax ko xalaat ni war nañ mën xalaat loolu pourquoi parce que damay liir mais Pape nag man ci dëkk bi laa dëkk man damay liir commentaire damay am ay écho damay déglu parce que Sénégal moo demee noonu xam nga yow Sénégal loo wax loo analyser loo réfléchir ñu teg ko fenn ni déwal la ko wax wala dafa am loo ci wut wala dafa am looy teg wala schéma wala fekk du dara fekk c'est c'est une vision parce que aussi des fois da ngay jël ay faits rattaché ko nga analyser xam nga la nga am loo ci conclure loo ci génne loo ci xalaat àdduna noonu d'accord walla mais mhm. ba ku ne xam na ni élection moom mooy dundal démocratie